في بيان أمور يفعل يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فاحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسمة الأزلام قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الأبصار في البعد عن سيما أولي الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ندل سواد إن شاء الله عندك الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي ci téeréem bu am solo bi tey ñuy jàng benn fasl mu di benn bunt boo xam ne daf ne faslun fi bayaani umurin yafaaluha alaamatu minha ma huwa shirkun wa minha ma huwa qaribun minhu wa bayaani xukmi ruqa wa tamaim mu ne fi bayaani umurin kon bunt la boo xam ne dafa jëm ci leeral ay mbir mbir yooyu mu ne yafaaluhaa dana ko def alaama alaamatu buñ ko waxee mooy li gën a bari ci mbooloo mi nga xam ne jànguñu diine xamuñu ko waa mbedd mi nee na ñoo koy def minha bokk na ci maa loo xam ne huwa moom shirkun ak bokkaale la maanaam am na ci loo xam ne bokkaale la wa minha mbir yooyu ñuy def am na ci it yoo xam ne maa loo xam ne huwa moom qaribun lu jege la minhu ci moom li tax mu jege bokkaale mooy yoon wu fa jëm la ki koy def te bàyyiwu ko fa mu ko jëmee mooy ci bokkaale moo tax loolu daria lañ ko tuddee wa bayaani xukmi ruqaa ak leeral nag atteb mocc wa tamaim ak ay boggalde boggalde mooy mooy lu ñuy takk loolu téere dugg na ci maanaam tamaa im boo ko féeree téere da ngay juum ndax téere moom kenn ku ne xam na ne lu ñuy bind lay doon ñaw ko léeg-léeg ñu ëw ko maanaam teg der ci kaw léeg-léeg ñu bàyyi ko mu nekk noonu ay mors kooku mooy téere kooku dugg na ci biir tamaa im waaye bokk na ci béjjën bu ñuy takk bokk na ci bant boo xam ne dañ koo yat di ko takk muy li ñu tuddee galen bokk na ci xor xor yi ngay gis mu jóge ci géej gi jël ko takk loolu lépp xeeti tamaim la kon loolu la wolof di tudde boggal de fii nag nee na mbir yi muy leeral ñi koy def mooy ñi nga xam ne dañoo xamut kon loolu jamono ma tax muy wax waaye nun ci sun jamono dem na ba ñi nga xam ne génn nañ ci turu am sax bokk ci alxaas sax nga xam ne ay intellectuel lañ leen di tudde tàbbi nañ ci biir yëf yooyu foofu kon sun jamono moo gën a tumuraanke moom jamono jëm doon dunde ndax jamono jëm doon dunde moom ña xamul rek ñoo doon def loolu léegi nag dem nañ ba jéggi dayo ña ñuy tudde nag boroomi xam-xam ak ay kilifa sax yoo xam ne léeg-léeg ab cër bu rëy la ñuy yor ci diine benn ñu faf toog di liggéeyal loola wala ñu yor ku leen koy liggéeyal faf ñi ñi di ko takk ñoom kon loolu su fekkee ñoom aajo woo woon nañ xam ko noonu noo leen ko gën a aajo woo tey mu tàmbalee ci bayit wu jëkk wi daanaka ñetti bayit yu jëkk yi ñoom ñoo ànd daf ne waman yasiq bi wadaatin aw naabi أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عدو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي شيء كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه يكتب يدعو عند نانا ومن يثق كسكنكو ولا كوولو bi wadaatin ci aw xor maanaam ki nga xam ne dafa jël kóoluteem wékk ko aw xor xam ngeen xor yéen ñëpp defe naa ne aw naa bi wala ab sell ndax yooyu yëpp nit ñi dañ koy def léeg-léeg nga gis ku lal ci mbedd mi di jaay dari bukki yaag sellu bukki baa ngi sellu tilla ngi nii su ko defee bu xaabakat yaag jabar yaag ña nga xam ne jabar ba moo leen yebal ne la nangam lii boo ko jëlee da nga koy booleeg sellu till sell bu ñu ko waxee mooy bëñ bu sew bi nga xam ne ci lay màtte loolu mooy naab moom la ñu wax sell kon yooyu yépp nit ñaa ngi koy jëfandikoo nee na koo xam ne nag wóolu nga wala sukkandiku nga wala wakiirlu nga ci aw xor aw naabi wala ab sell moo xam sellu gaynde la moo xam bu bukki la moo xam bu till aw xalqatin wala ak fas mooy wëñ yoo xam ne dañ koo jël di ñaan dara di ca tifli di di fas wala sax nekkul wëñ waaye weñ gu ñuul la moo xam da koo takk ca loxo ba wala da koo takk ca baat ba jàpp ne dafa am baatin bu ca nekk boo xam ne day faj aw ayuni diaabi wala bëti til yooyu yëpp jabar yi dañ ca yebal nit ñi di leen ko wutloo bëtub til boo ko wutee boole koog nangam ak nangam ak nangam nangam la lay andi kooka daal di wóolu jàpp ne bëtub till ba daf koy jariñ aw xaytin wala ak wëñ mooy ñoo ñi di fas nafasaati fi luqad la leen borom bi tabaraka wa taala tudd ci alquran ñi nga xam dañuy tefli di fas ñu bari ci ñoom wëñ googi buñ koy jëfandikoo muy fas gi juróom-ñaari fas-fas ngay gis mu am ko léeg-léeg suñ koy fas am na ci ñoo xam ne alam nasra alam nashrah laka sadrak la ñuy jàng di ca tefli di fas kaaf gu ñu àgg def benn pas-pas ba mu juróom-ñaari kaaf mu doon juróom-ñaari pas-pas ñu ne la lii nangam ak nangam ak nangam lay faj nga daal di wóolu nga daal di wóolu wëñ ga mu ne aw xaytin kon aw wala ak wëñ aw udwin wala ab cër minan nusuuri bu jóge ci tan xam ngeen tan de mooy caali bu rëy boobu di naaw nga xam ne su dara dee rek medd mu daal di ñëw commencé di lekk loolu rek nag lay lekk tan moom medd rek lay lekk waaye nag bu xaabakat yi lu bare bari ci seeni mbir ci tan lañ ko wékk ñoo xam ne donc wala lañ lay wax ñi ne la wewa ñi ne la bët ba ñi ne la sàllwa aw odwin moo xam ab cër bu mën a doon minan nusóori bu tukkee ci tan ya nisr mooy benn bi bu dee nusóor mooy tan yu bari aw watarin wala ak wëñ wëñ googu nag bokkul ak xayt bi taxoon ñuy wax wëñ gii moom la ñuy tudde cinkóor boo demee ci aw fas woo xam ne watuñu karaw gi ne ci loos wa da nga gis ne karaw gi dafa gudd bay lang yooyu boo jëlee benn bi kooku moom la ñuy tuddee cinkóor cinkóor yooyu ñay def jumtuwaay yi fo yu baree bari léeg-léeg ci cinkóor googu lañ koy liggéeyee ñay defar fett itam li ñu tudde xaws buum gañ cay takk di ci def fett gi di tiire muy dem ñu gën a bari ci wëñ googu lañ koy jële googu nga xam ne ci baatu fas wi lay jógee c'est-à-dire cinkóor gi cinkóor googu nag moom it dafa am yuñ ci wékk ñu bari dañ naan la buñ ko jëlee def ko ci ak fett bu demee ba màggat bañ daggee ko ca fett ga ba wàcc ko boo ko jëlee boo ko takkalee gone nangam ak nangam ak nangam kon mi ngi lim yu bari yoo xam ne day wax ku ko wóolu mi ngi tàmbalee kon ci aw xor teg ci ab sell teg ci loo xam ne ak moo xam ndomb ak baat nga koy tudde wala ak weñ guñ takk muy ab lam wala bët yoo xam ne ci till la jóge wala leneen lu dul till sax ci mala yi wala ak fas wala cër bu jóge ci ay tan wala cinkóor goo xam ne dafa jóge ci aw fas aw turbatil qubuuri wala suuf soo xam ne ci bàmmeel la jóge bàmmeel boo xam ne dañoo jàpp ne nit ku baax a fa tëdd ñu ne la lii kat boo ko jëlee da ngay dem ca bàmmeel nga tibb suusa boole ko ak moom def ko nangam ak nangam ak nangam yooyu yépp ñooy yeble dañ koy def kon lim na yu bare bari yoo xam ne nee na ku ko wu ku ko ku ko wóolu wala ku ca sukkandiku li ay amrin moo xam mbir mu mën a doon kainin ak mu mën a nekk taallaqa nga xam ne takk na ko maanaam jël na ko takk ko wala aju na ca ngir mbir mooma moo xam daf ca jëñ lor moo xam xeetu lor woowu mën a doon moo xam bët la moo xam dafa ragal ñu lor ko wala dafa défendre boppam fegu comme niñ koy waxe wala dafa doon loo xam ne xëcc njariñ a koy ci jublu wut wërsëg wala baaxal ay diggante wala nangam wala yu mel noonu kon mbir mu mën a doon moom cause ba tax mu koy def kooku amu ci benn solo lu man di tax mu def yooyu wala mu wóolu ko wala mu sukkandiku ca wakalahu llahu wakalahu dana ko bàyyi allahu yàlla ila ma jëm ca la nga xam ne allaqa takk na ko waaw lim la bëgg a wax mooy ku wóolu yii te yii mu lim fi wax dëgg yàlla nit ku ne coy ànd akum xelam doon ko sotti en tant que doomu aadama même bu doonul woon sax ab jullit waaye yor na xel war naa delam dem ba xelam paase na di jël yi di ko takk ci aw yaramam wala mu di ko takk ci ab néegam wala ci otoom yooyu yépp da nga koy gis aw xor wala sellub til wala bëtub tànn wala ween yooyu wax dëgg yàlla nit ñi war nañ koo war nañ koo mën a weesu ak seeni xel ak fi ñu toll ci jamono ji waaye taxul nag ñu weesu ko nee na ku ko def nag borom bi tabaraka wa taala daf lay bàyyi ak loolee nga wóolu defe naa ne kuñ bàyyeeg sellub bukki wala bëtub tan ne la mu ngoo na la fegal man yàlla génn naa ci ndax dana la mënal dara loolu mooy tawkiil borom bi tabaraka wa taala daf lay wakkiil ca loolu ne la mu ngoo yaag tan maa ba xam lu mu la mënal yaag till gaa ba xam lu mu lay mënal kooku mooy wakkalahu llahu ila ma allaqa moo tax ci xadiisu abdullah ibnu ukaym radiallahu taala anhu daf ne dégg na yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne man taallaqa shay'an wukila ilayhi ku takk dara yàlla bàyyi ko ak moom xadis boobu tirmisi génne na ko al imam ahmad ibn hanbal génne na ko ci musnad ci sanad boo xam ne bu wér la ku takk dara ñu bàyyi la ak moom kooku doon lu leer nañ loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax xadiisu Uqbata bni Aamir xam naa danañ ci ñëw sax ci kanam fi muy waxee ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na man taallaqa tamimatan koo xam ne takk na gàllaaj wala boggalde comme ni ma ko waxoon léegi fala atamma allahu lahu yàlla bu yàlla mott li lam ci jublu woon maanaam yàlla bu mu ci am la muy wut kooku ak ñaan yàlla la gu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci képp koo xam ne da ngay takk gàllaaj nee na képp koo xam ne takk nga gàllaaj la nga cay wut yàlla boo ko am kon nun julli di nu ne amin mu ne wa man taallaqa wadaatan fala wadaa allahu lah ku takk aw xor nee na lam doon jéem a sippi di ko teggi ci lor yàlla bu ko yàlla teggi kon ñu ne amin xadis boobu al imam ahmad génne na ko tabaraani génne na ko ci sanad boo xam ne bu wér la ak xaakim ibnu masud radiallahu taala anhu mën nañoo jàngale ci kanam door agsi ci loolu kon leeral na la foofu ne la mbir yi mu tudd képp koo xam ne takk nga ko dañ lay bàyyi ak moom mu des nag takk yooyu lan mooy àtte bi ndax dafa waxoon ne mbir yi muy tudd yenn yi bokkaale la mën naa nekk itam wala yenn yi mën naa doon loo xam ne daf lay yóbbe bokkaale da koo jege loolu nag jubluwu ci ne da ngay ñëw ñu ne la ah bu dee xor wi kat bokkaale la waaye bu dee sell bi daa jege bokkaale déedéet maanaam fa la mbir mi tollu loolu la ci jublu yow mbir mi fan la la tollu takk naw xor wala mu takk ab sell wala mu takk ab reen wala ab galen wala béjjén wala lu mën a doon dañuy xool su fekkee ne moom lay pas-pasam moo di xor wi wala béjjén bi wala sell bi mbindeefum yàlla képp la moo xam ne munta jariñ munta lor waaye kay jariñ ak a lor kooka mooy sunu borom tabaraka wa taala lii nag benn moyen la rek boo xam ne da nga ciy jaare pour nga am loolu ci sunu borom ñu ne la kooku àggul ci bokkaale guy génne nit ki lislaam àggul ci bokkaale guy génne nit ki lislaam waaye nag lu xaraam la maanaam bokkaale bu ndaw lañ koy tudde ñoom bokkaale bu ndaw nag buñ ko waxee bul jàppee lu ndaw la defe ne day lu ndaw ndax kabair yépp boo jëlee bokkaale gu ndaw moo leen féete kaw moo leen gën a garaaw moo leen gën a rëy kon bokkaale gu ndaw ndawut waaye da di boo ko comparé ak bokkaale gu mag nag comme niñ ko waxoon ci bind bi weesu foofu mën na faa ndawe su fekkee da nga ko comparé kooku ndax kooku moom day génne nit ki lislaam moom mu dem bokkatul ci jullit yi kii nag génnewul nit ki bokkatul ci jullit yi waaye mi ngi ci danger bu mag ndax mi ngi def loo xam ne lu xaraam la lu gën a diis kabaayir yi muy bàkkaar yu mag yi ñaareel bi mi ngi def loo xam ne daf koy xëcc jëmale ko ci bokkaale ndax su tàmbale woon ne ah tey kat wëñ gi moom dama ko takk nii rek pour mu fajal ma nangam saa boroom a koy faj waaye wëñ gi moyen la gis lam takkoon faju ëllëg mu jëlaat wëñ nga defati ko mu wérati keneen ñëw mu defal ko ko mu wér bu yàggee moo xam bëgg na ko wala bëggu ko waaye xol bi dana aju ci wëñ gi xol bi moom ci wëñ gi lay aju bu yàggee bu yàggee ci ci wëñ gi lay aju kon mbir mu garaaw la mooy bàkkaar bu mag bu ndaw la d'accord maanaam bokkaale gu ndaw la waaye bàkkaar bu mag la te ki koy def bu ko bàyyiwut mën na koo tàbbal ci bàkkaar bokkaale gu mag maanaam mu génn lislaam kon yooyu des ko war a bàyyi kon loolu mooy àtte bi li muy takk bu fekkee ne loolu la da ko jàppee ne borom bi tabaraka wa taala mooy faj mooy indi njariñ mooy dàq lor waaye lii mooy la kooku ñu nangul ko ne kon yow génnoo lislaam waaye nag yaa ngi ci dansé ndax yaa ngi def loo xam ne bàkkaar moo gën a rëy sax bàkkaar bu mag yaa ngi jaar ci yoon woo xam ne boo wëññikuwul mën ngaa tàbbi ci bokkaale gu mag te bokkaale gu mag day génne nit ki lislaam keneen a ngi koo xam ne nag daf koo takk dafa àgg nag ca fa gën a rëy nag muy gëm na ne xor wi daf koy faj gëm na ne téere bi mu takk da koy faj gëm na ne suufus xabru bi daf koy faj kooku jeex na tàbbi na ci bokkaale bu mag génn na lislaam tuubaat delsiwaat ci biir jullit yi waxaat ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ànd ci jullit ya di def la ñuy def di bàyyi la ñuy bàyyi loolu mooy tax mu doonaatub jullit su continuer ci pas-pas boobu jàpp ne aw xor da koy jariñ wala mu koy lor wala ab téere wala béjjén wala bu yàq ba faatu fekki boroomam nañuy def yéefar ya ak mushrikoon yi noonu lañ koy def te jullit boo xam ne wóor na la ne kii pas-pas bii la yóbbaale du dagan ci yow ngay jëflanteeg moom loo xam ne ab jullit a ko jagoo loola mooy lu mel ne faatu nga di ko jullee wala nga di ko ñaanal su boobaa doo ko sañ su dee jigéen jëm yoroon itam tam doon jigéeni jullit mu wóor ko ne waa ji pas-pas bii la yor kooku daa war a tàggoog moom wala mooy li jaar kon mbir ma noonu la demee fas ga moom jàpp ne mooy jariñ di lor moom mooy indi loola kon nag kii lay noppal jullit mooy mu mucc ci bàyyi yooye yépp sori ko ndax di ko def naan amaanakat man xam naa ne yàlla mooy faj waaye lii mooy moyen bi loolu rek tafsir ko ba mu leer ba dugg ci bopp lu jafe la ndax ginnaaw da nga ne loxo bi metti moom wëñ giñ jël takk ko moo koy faj bu dee bët bay metti wala da ngaa bëgg a fegu ba bët du la lor sellub nangam ngay jël lu tax yooyu benn bu ci nekk am loo xam ne def daa nekk spécial nga xam ne moom dong lay faj lee lee dong lay faj lii lee dong lay faj séparation boobu yi ciy dugg moo lay ñoddi ba nga gëm ne kenn ku ci ne daa am lu muy def su boobaa nag yàlla defatul su boobaa boo ci tuddee yàlla itam maslaa la ci kaw ak réeral nit ñi waaye la nga gëm mooy jëmmi loola ci boppam mooy faj loolu loolu nag su fa nit ko àggee moo xam nit ñi xam nañ ko wala wala xamuñu ko waaye na xam moom digganteem ak boroomam ne tàbbi na ci bokkaale na tuub delsiwaat ci lislaam te bàyyi yow ya loolu moo koy noppal kon mooy loolu loolu mooy àtteeb takk lépp loo xam ne dañ koy takk di ca séentu njariñul baatin lu muy indi wala lor ju muy jeñ ci wàllu baatin ñi koy takk te doonul alxuraan loolu moo di àtteem alxuraan ab àtteem dana ñëw mu jàll ci lim dige woon ndax daf ne woon wa bayaani xukmi ruqaa leeral nag àtteeb mocc nee na summa ruqaa min xummatin wala min xumatin aw ayni فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هد من هدي النبي وشرعته فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته نينا ثم جناو لولو الرقى موتشيه موتشي ني جفنديكو boo waxee ruqya mooy ak mocc ruqa mooy mocc yu bari ya ndax mocc it mën naa doon ay façon yu bari yu bokkut mën naa nekk ci alxuraan bu dee ci alxuraan mën naa nekk ci saar wi wala ci saar wi mën naa nekk ci sunna bu dee sunna mën naa doon ci ñaan gi wala ci ñaan gi loolu lépp ay xeeti mocc la moo tax mu ne mu tudde ko ruqa muy mocc ya min xumatin ci tooke tooke bu ñu ko waxee mooy genre posen boo xam ne day jóge ci luy dund moo xam jaan la wala jiit wala yu demee ne ñoom yi nga xam ne suñ la màttee day am poisson bu ñuy bàyyi ci sa yaram kooku la ñuy tudde tooke aw ayni wala bët maanaam nit ka tooke dugg na ci yaramam maanaam poisson dugg na ci yaramam aw ayni wala bët bëtub doomu aadama lor na ko ndax bët ci boppam dana dana lore du bët yi ñëppay lore nag waaye am na ñoo xam ne seeni bët mën naa lore amoon na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay nit ñoo xam ne kuñ xool te jublu laa lor mën nañ laa lor ci seeni bët su fekkee borom bi tabaraka wa taala dogal moo tax ci xadisu abi hurayra radiallahu taala anhu mi ngi ci buxaari ak muslim yonente bi salallahu alayhi wa sallam daf ne inna al ayna xaqun maanaam bët dëgg la inna al ayna xaqun bët dëgg la mooy bët bi mën a lor kooku dana lor kooku nag dañ koy dañ koy mocc dañ koy jàngal ñaan yoo xam ne ñaan yi muslaay la ci alquran wala ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu ngir mu wér moo tax lenn ci borom xam-xam yi ci aay bi borom bi tabaraka wa taala di wax ne wa in yakaadu alladina kafaru la yuzliquunaka bi absaarihim lamma samicu dikr di ko yéefar yi ñi nga lay xaw a lor ci seeni bët bañ déggee ngay jàng alquran am na borom xam-xam yi tafsir yu bari yoo xam ne dañ ne loolu mooy lori lori bët yoo xam ne ci xool lay jóge kon lu mel noonu ñàkkul ay nit ñoo xam ne suñ xoolee nit ki xool boo xam ne dañ koy jubloo lor maanaam lor mën naa ñëw ci moom loolu lu sax la lu wér la am na ay xadis yu bari yu ci ñëw yu wér am na nit koo xam ne ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am koo xam ne daf doon sangu jamono yooyu moyens yi demewul nii mu demee ba nit ki mën a am salle de bain wala wanag boo xam ne dafay sangoo waaye ay genre ay bant lañ doon samp boo yoree sa mbubb mi ngay sol wala li ñu tudde isaar sa koddaay beeg sa làmbaay bi ngay yor kuy sangu da koy jël laxas ko ci bant yi nekk ci biir di sangu yàlla dogal kooku muuroo séram nekk ci biir di sangu sér bi naaw dajanteeg am ku fa romb koo xam ne ci ñi nga xam ne dañuy xool nit ngir bëgg ko lor ci la bokk bi mu ko séenee mu daal di yéem rafetaay bi yaramu kooku rafet nes tuuti waa ji feebar daal koy dal boo xam ne bu gaaw a gaaw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi loolu jàllee daf ne képp koo xam ne ci yéen gisati na dara mu yéem ko na wax ma sha allah fa innahu la yadurru su ko waxee benn lor du jóge ci moom di ko dal kon ku gis lu la yéem loo xam ne rafet na ci yow wala baax na ci yow wala nga ne ah lii de moom baax na wala lii de rafet na na nga ne macha allah soo ko waxee benn lor du jóge ci yow di di dal kooko ndax nit ki mën naa doon koo xam ne bu waxee ci dara sax mën na koo lor te fekk moom yëgul ne sax moom looloo ngi ci moom amaana te it amaana sax boo demee ñëpp a ko yor waaye léeg-léeg day lor léeg-léeg mu ñàkk a lor su ko defee yow doo ko yëg kon foo yéeme yëfi jàmbur wala nga wax lu ci jëm na nga wax ne macha allah ndax lor bañ a jóge ci yow di dem ci ci ab jàmbur loolu la yor orientation boobu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe kim dal nag mën nañ koo jàngal alquran mën nañ koo defal leneen mën nañ ko defal wax nañ ne it bal loolu sax na sax ci saxaaba yi ne ki nga xam ne moom moo ko lor ci bëtam su jàppee mu laal ndox moomu moom ci boppam moom mi mu lor su kii jàppee jox ko ndox mi des mu ñëw jàpp ca wala mu laal ko wala mu naan ko loola dafay faju dafay wér loolu itam sax na kon ala kulli xaal bët moom lu wér la tooke itam muy poisson buy dugg ci aw yaram itam lu wér la mën naa jóge ci jaan mën naa jóge ci jiit mën naa jóge ci sax luy naaw comme yamb wala yu mel noonu saa boo xamee ne yooyu dal na jullit bi kon loolu ci yii tax ñi mocc ci la bokk moo tax mu ne summa ruqa min xummatin bu jóge ci tooke aw ayni wala bët fa in takun su fekkee nekk na min xaalisil waxyayni ci ñaari wax yu sell yi maanaam ñaari wax yu kese maanaam alquran ak sunna su fekkee ne mocc ya dañoo jóge ci alquran ak sunna fa daaka nee na loola min hadiyin nabi bokk na ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i orientation maanaam ay jubbanteem wa shiraatihi bokk na ci shariaam itam maanaam mocc daal boo xam ne daa tukkee ci alquran wala ci sunna nee na kooka moom yonent bi jàngale na ko te itam ci diineem jii ci la bokk wa daaka nee na loola la ixtilaafa amul ak juuyoo fii sunniyati ci nekk gim nekk sunna maanaam ci ne mocc gu jóge ci alquran ak sunna sunna la loolu nee na boroom xam-xam yi moom juyoowuñ ci ndax loolu sax na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam def na ko maanaam mocc na nit li koy tegtali mooy xadisu aisha radiallahu taala anha أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما حديث بوب من البخاري اك مسلم عائشه رضي الله تعالى عنه نانا يونس بي عليه الصلاه والسلام دانا دف سو فكي كين سي وا كرم سي نجابوتام فيبرنا موديكو موتال سي لخوم داي جورام جيل لخوم ديكو تك سي يارام وا دي ñaan ñaan gogu اللهم يا سا بروم رب الناس yow mi nga xam ne yaa moom nit ñi adhibil baas yëkkatil ay wi yëkkatil musiba mi maanaam dàqal musiba mi mu dem adhibil baas washfi yàlla na nga ko saafara anta shaafi yow dong yaay ki mën a saafara shifaan saafara soo xam ne laa yugaadiru saqama laa shifaa illa shifauk maanaam amul benn saafara bu mën a faj budul sa saafara yow kon shifaan laa yugaadiru saqama sa saafara mooy saafara soo xam ne su ñëwee day dàq bépp ràgg maanaam bépp feebar bu mën a doon da koy dindi kon ñaan googu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci yim daan mocce kon sax na ci sunna ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana ko def daana ko digle itam ndax aïcha radiallahu taala anha nee na amarani rasulullahi salallahu alayhi wa sallam wala benn riwaaya bi amara rasulullahi salallahu alayhi wa sallam an yustarqa min al ayn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ñuy mocc koo xam ne bët daf koo lor xadis boobu mi ngi ci buxaari ak muslim ba tey kon def na ko digle na ko def nañ ko it mu accepté ko maanaam li ñu tudde taqrir loola mooy xadiisu abdullah ibnu abbas bi nga xamee ne saxaaba yi dañoo génn di dox ba romb ab dëkk fekk chef de village ba maanaam ka jiite dëkk ba jaan da ko màtt waa dëkk bépp dajaloo wër ko te xamuñu nuñ koy defal nuñ koy faje saxaaba yi boobee wala saxaaba yooyee ñu romb fa kenn ci ñoom ne leen mën nañ koo ñaanal ñu ne ñaanal leen ko kooku ñëw jàng faatixa mocc ko ca mu daal di wér jóg dem yoonam ñi daal leen di jox benn coggal maanaam xar yu baree bari ñu ne leen yóbbu leen ñu màng seeni xar yóbbu biñ ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ko ko foofu la ñuy dégloo nag lan la tontu ndax da koy tere wala da koy accepté daf ne ko wa ma adraaka annaha ruqya wa ma adraaka annaha ruqya noo xame ne fatiha ci boppam ak mocc la maanaam noo ko xamee daa di ne xuduha wadribu lii bi sahmin ne ko lii ñu leen joxoon jël leen ko lew na waaye na ngeen ma ci defal ab cër am soxla naa ci man itam bon loola accepté gu leer naa ñële gu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne mocc ci alquran kon nangu na ko kon def na ko digle na ko def nañ ko itam mu nangu ko xadis boobu itam mi ngi ci buxaari kon su fekkee ne daal lay gàttal ga mocc gi ci alquran ak sunna ci la jóge nee na loolu dëppoo na ak njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo na ak diineem te boroom xam-xam yi juyoo wuñ ci ne loola sunna la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko awf ibni malik nettalee nee na biñ nekkee ci ceddo ga kat daanan mocc maanaam danoo yoroon sunuy mocc ndax kenn ku ne xam na ne aada yeeg cosaan yeeg yëf yi moom dañoo yor seen i mocc ak seen yëf yi bopp yoo xam ne yi ñuy jëfandikoo lañ nee na bi lislaam ñëwee ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kayfa tara fi dalik ñu ne ko waaw nun mocc yi nu daan def loo ci xalaat nun koy nun nunuy def léegi ndax itam kat ñoom noonu lañ doon def biñ nekkee ci seenu jaaxil yi di ko dund ba mu yàgg lislaam ñëw ñi ñëw ci biir lislaam it yañ yoroon yépp nag wóolootuñ ci dara lenn lu ne dañ koy yëkkati gaaral ko yonente bi waaw nangam gën daan def moom nu nuy def léegi su dee lu baax mu ne loolu def leen nangam su fekkee lu baaxut la mu wax leen lan la ko lislaam wortee lan la fa wuutal kon noonu lañ doon def biñ ñëwee ñu ne ko waaw suñuy mocc moom noonu cay def nee na mu ne aridu alayya ruqaakum nee na mu ne gaaral leen ma seeni mocc maanaam kenn ku nekk nataar yi lam daan wax ma dégg laa ba'sa bi ruqaa maa lam yakun fihi shirkun mu ne mocc lu baax la li feeg bokkaale tabbi wu ca li feeg bokkaale tabbi wu ca kon foofu li nga fay dégge mooy ki yoroon mocc goo xam ne du textu alquran du textu xadis waaye textu wax la juñ xam joo xam ne la muy wax lépp ci yàlla la ko delloo muslu ci yàlla yàlla yàlla na nga faj kii yàlla yàlla na nga yëkkati ku feebar kii yàlla yàlla na nga def nangam nga xam ne lépp suñ borom la ko delloo te du alxuraan du sunna kon i dàqontewul ak alxuraan ak sunna maanaam dañ koy nangu kon nekk gi alxuraan wala mu nekk sunna la chàkk na kooku mooy la gën mooy la gën a kawe moom lañ gën a yaakaar itam nag njariñam waaye nag su muccee ci bokkaale rek te doon loo xam ne luy ñaan sun borom tabaraka wa taala la kon ba tey loola ak moj ci lañ koy tuddee moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis boobu li muy wax mu laa basa bi ruqa maa lam yakun fihi shirku maanaam amul benn lor amul benn ay wu nekk ci mocc yi su fekkee ne bokkaale nekku ca kon kooku leer na mu ne nag amma ruqa almajhulatu almaani fa daaka waswaasun min alsheytaani mu ne amma ruqaa daal mocci ya maanaam mocci ya nag almajhulatu almaani yi nga xam ne dañoo réere maanaam yi maanaam xamoo sens bi yi ñuy tari rek la te loolu nag mu gën a mocckat yi ak bu xaabakat yi la ñuy jëfandikoo mu doon ay jat ak i mocc lu ci bari xamuñu li ñuy wax lu mu doon luñ doon dante noonu mu doon ay baat rek ñu di ko tari di dem la am ci yoo xam ne la mu doonoon yàqu na bu yàgg am na ci loo xam ne cosaan la sax arab la woon ñu soppi ko di wax leneen salaali moomadu walaali moomadu fekk ko salli ala muhammad la woon ñu sëf ñu ne salaali moom kon yu mel noonu doonoon na dara waaye dañ ko yàq ba kenn xamatul lu mu doon am na nag yoo xam ne moom kenn xamul sax luy cosaan yi wan làkk la boo xam ne dañ koy tari noonu rek boo laajoon li ngay wax lu mu doon xamut lu mu doon moo tax mu ne ama ruqa majhulatul maani yi nga xam ne dañoo réere maanaam yi nee na fa daaka loolu wiswaasun wala waswaasun nee na loolu ak jaxase la min asheytaani bu tukkee ci seytaane yi maanaam jax-jaxal yu tukkee ci seytaane la ginnaaw xamoo lu mu doon loola moom seytaane la wa fii qad jaa alxadiisu anna shirkun bila miryati faxdar anna nee na wa fiihi ci mocc yooyu nga xam ne maanaam waswaas boobu yi nga xam ne moom mooy mocc gu kenn xamut li ngay wax lu mu doon nee na qad jaa dikk na alxadiisu xadiis ba annahu shirkun xadiis ñëw na ne loolu ab bokkaale la bila miriyati nee na amul benn sikki sàkka amul werante faxdaran na na nga ko wattandiku nee na xadis ñëw na ne mocc yu mel noonu bokkaale la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ne inna arruqaa waltamaima wattiwalata shirkun maanaam mocc ya nga xam ne moom la jaahiliya doon def yooyu la wax foofu mu ne bokkaale la borom bi tabaraka wa taala nee na wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaihim li yujaadiluukum maanaam seytaane day ñëw ca jabar ba nga xam ne moom la méngool ay mbir moom la bokkal société su ko defee ñu ñëw di jaxase seen diine maanaam am na ay jabar yoo xam ne ci biir nit ñi lañ nekk nga xam ne partenaires yi seytaane lañ buñ ñëwee ñoom la ñuy àndal jaxase seen diine yàqal leen kon ñooñu des leen di wattandiku moo tax mu ne waswaasu min asheytaani kooka ca seytaane la tukki kon daal mocc gi ngir sharia nangu ko laaj na mu am ay condition ba ci jiitu mooy su ma nee doon alquran wala sunna loolu mooy mocc gi gën ci mocc yi su fekkee nag nekkul ci alquran wala ci sunna na nekk làng boo xam ne buñ xam la ñaareel ba nu mucc ci lépp loo xam ne xeetu bokkaale la wala luy yóbbe nit ki bokkaale loole muy mocca du ci mucc tayit loolee doonut alquran doonut sunna wala même la doon alquran ak sunna sax jamono muy mocc mu xam ne loolu moyen la boo xam ne sharia daf koo santaane ñu ne la boo jaaree fii ñaan yàlla faj waaye même mocc googu sax du caagi ni moom mooy faj même mocc gi nga xam ne sunna la du caagi ni jëmmi mocc gi day faj waaye dafa doon yoon woo xam ne boo ci jaaree suñu borom tabaraka wa taala faj sa faj sa aajo loolu lu ma taxamaale la kon mocc goo xam ne xamalum doon lu garaaw la moo tax mu teg ci ne id kullu man yaquluhu laa yadri laallahu yakunu maxdal kufri nee na id ngir kullu man yaquluhu képp koo xam ne mi ngi koy wax maanaam mi ngi jëfandikoo mocc goo xam ne xamut li muy wax lu mu doon nee na kooku laa yadri xamut laallahu xëy na moom yakunu dana nekk maxdal kufri maanaam kéefaru kese maanaam la muy wax mën naa doon kéefaru kese te loolu mooy la ci gën a bari jàpp yooyu nga xam ne kenn xamul lu muy bëgg lu ñuy wax ñenn ñi ay jinne la ñuy woo ñi ay biddiw la ñuy woo ñenn ñi ay rawaan yoo xam ne kenn xamul yan façon bindeef lañ kon ñooñu ñaanuñu yàlla waaye ñeneen la ñuy ñaan te la chaque ne loolu kéefar la moo tax mu ne is kullu man yaquluhu la yadri laallahu yakunu maxdal kufri aw huwa min sixri lyahudi muqtabas ala alawaami labbasuuhu faltabas ne mën naa doon loo xam ne kéefaru kese la wala aw wala huwa moom min sixril yahudi mi ngi bokk ci njabaru yahud yi yahud yi muy juif yi ñoom ñooy ñi gën a siiw ci wàllu njabar mën naa doon njabar gu jóge ci yahud yi ndax xam ngeen ne njabar gi njabaroon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci yahud yi la jóge woon waaw ñuy wax Labiid ibn Asam muktabas luñ niitoo la ci njabarug yahuud yi labbasuuhu nee na lëntal nañ ko alal awaam ci ñi nga xam ne jànguñu xamuñu dara fal tabasa mu lënt maanaam dañuy jël njabar goo xam ne ci njabari yahuud ya la bokk yu bon yu ñuul yu yàqu yu bon ya lëntal ko nag ci kanam nit ñi bañ jàpp ne lii lu war a baax la lëntal googi nag noonu lañ koy defee léeg-léeg danañ bind ay aaye alquran nga xam ne boo xam ne da nga gis alquran tàbbal lu mel ne xaatim ci biir ak ay chiffre fekk chiffre yooyu mooy njabar ga kii xool ci kaw mën naa gis alquran fekk njabar ga moo nekk ci biir su ko ñu ne ah diw de moom alquran rek lay faje fekk alquran de moom lu mu fa bind la rek waaye la tax yëf yee jóg du loola kon loola ka xamut dara muy awaam ya ñooña lañ koy talbiis ci seen kanam muy lëndëmal ko su ko defee mu lëndëm fa ñoom duñ xam duñ xam loola lu mu doon kon daal képp koo xam ne mi ngi dund ci jamono ju mel noonu surtout moom jamono ji nga xam ne ci la ñuy dund moom defe naa ne ci gën a lëndëm ci la bokk dem na ba jabar ba ci boppam noonu ci suñu réew mi nëbbootul waaw bu dee réew yi nga xam ne dañuy aar diine jabar bi moom day làpp day nëbb day daw maanaam la chaque ne aaral nit ñi seeni pas-pas ak seen diine bokk na ci seen àq yi nga xam ne warees na leen koo defal ni ñu leen di aarale seeni yaram ak seeni alal maanaam boo saaga woon nit ki bàyyi wala nga saaga ko maam wala nga saaga ko moom ci boppam am na droit ci porter la plainte wala déet te it bu ngeen ko toppee amaana mën naa am lu ñu lay teg xeetu sanction bu ñu lay teg boo xam dañ la naan yaa tooñ ki dikk nag jëfandikoo jabar ba yàq pas-pasum nit ki kooka lam ko def mooy la gën a rëy maanaam moo gën a rëy loolu réew yi nga xam ne dañuy aaral nit ñi seeni pas-pas ni ñu leen di aarale seeni yaram ak seeni der suñ jàppee ab jabar dañ koy tëj waxoon naa la fi ne xam naa ay jabar yoo xam ne quatre-vingt-neuf lañ leen jàppoon Arabie Saoudite ñuy ay sénégalais dugal leen ci kaso bi ñuy jàng alxuraan ñu ne leen ko mokkal su fekkee da ngaa tuub génn am na ci ñoo xam ne mokkal lañ alxuraan bu yàgg yàgg yàgg ci biir kaso yi ba doon ci biir kaso yi sax ay duwaat maanaam ay wootekat ci ci ci sunna di jàngale itam alxuraan lu mel noonu loolu loolu aajo wonan ko su ab jabar amee fiitu toog ci këram yabal bind ab communication ci ab rajo yi wax ne diw sàngam tudd nangam numéro portable am di sàngam mu dëkk ci quartier sàngam nee na day defal nit ñi laa day defal nit ñi nag ku am problème mu tribunal sax boo ñëwee xanaa kooku nag léegi justice bi lay xeexal lay ku am problème mu tribunal sax boo ñëwee dana la ci mën a musal kooku mi ngi soññ nit ñi nañ dem sàcc nañ def nangam nañ def nangam ku ci am problème ba dikkee ma musal la ci yooyu ci yàq réew mi ci la bokk yooyu yu mat a yu mat a bàyyi xel la day yàq pas-pasi doomu aadama yi kon moo tax mu ne fa xadaran wattandikul summa xadaari topp nga wattandiku minhu ci moom ci lépp loo xam ne xeet yu mel noonu la laa taarifi alxaqa wa tan'a anhu laa taarif alxaq bul xam dëgg wa tana anhu nga di ko sori waaye nit ñi am na ci ñoo xam ne xam nañ dëgg xam nañ li lii ay caaxaan la waaye dañu wëlbati ko dem di ko sori léeg-léeg nga dégg sax njabar yi àgg na ci ñoo xam ne léegi dañuy gisaane ci ci ci rajo yi nit di téléphoné ñu naan ko yow yaay nangam def nga ñu nangam nangam ci nit lu ci gën a bari nag ay complot la ñuy def maanaam ñay téléphoné ñu xam lañ ñoo xam ne dañuy téléphoné ñuy wax ak ñoom ne ko yow nangam ak nangam la mu ko wax mu accepté su ko defee miskin may déglu nag daa dina kii de borom xam-xam la daal di dégg numéro ba muy joxe ne ku ma soxla dama seet si foofa mu daal di ñëw seet si ko foofa la koy naxee ba jël alalam loolu moo ko tax a jóg yooyu yépp ci ñàkk kaaraange ci wàllu diine mu nga waral mu mën a am kon loolu mooy at tépp lépp loo xam ne aju na ci wàllu mocc mocc nag jaadu na tuuti benn kàddu gu gàtt goo xam ne danañ ko ci wax fii mooy wattandiku ak jéggil dayoo mbir yi ci wàllu mocc ba nit ki lépp lu ko laal ci kaw suuf rek ñu ne kooku jinnee ko fàdd wala seytaane nangam wala nangam ndax dem na ba pas-pas boobu dafa tasaaroo ba mel ne ay dogali yàlla yoo xam ne day ñëw dal noonu nit ki wala xeeti feebar yoo xam ne day dal nit ki lu dul jinne day mel ne amatul nit ki mën naa feebar mën nay say mën nay wax sax lu mu xamut te fekk jotewut ak jinne dara lay dalil ba mooy lu ëpp ci ñooñu boo leen yóbboo hôpital ñu tane te la chaque ne saddum jinne moom ab médecin mënu koo faj kon bala ñu ne nit ki jinnee ko sadd wala jinne jaa ngay wax ca làmmiñ wa wala yu mel noonu xeeti ëppal yooyu nañ teeyu dëgg la ki feebar moom sañ naa ñu moccal ko ñaanal ko ci alxuraan ñaanal ko ci sunna waaye bu mu na dem ca docteur yi itam faju analyser ko xool ba xam moom ban façon feebar moo ko dal di ko faj mu continuer boole ko ak ay ñaanam loolu mooy li jaadu waaye lu jóg ñu ne kooku jinne yaa ko def jinne ja nee na nangam wax na nangam ñu tasaare loolu ci biir nit ñi ba day mel ne jinne moom noonu la jekkoo nit ñi te mbir ma demewul noonu jullit yoo xam ne dañuy jàng alxuraan gëm ko jinne mëna lu leen dara ci diggante dara dal ko jinne jekku ko foofa waaye lay cosaan di aslu ci diine mooy jàngkati alquran yi ñoom la jinne gën a sori ñoom la seytaane gën a sori wa ida qara'ta alqurana ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axirati xijaban mastura soo jàngee alquran ma dox sa diggante ak alquran borom bi tabaraka wa taala dafay dox sa diggante ak seytaane ko kuréelam duñ la mën a lor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne iqra'u surat albaqara wa surata ali imran jàng leen suratul baqara ak suratu ali imran ci seeni kër daa dina fa innahu la yastatiuhuma albatala maanaam ponkali cheytaani yi gën a màggee xadis ba mi ngi saxiix muslim ponkali cheytaani yi gën a màggee soldarus iblis su mag si nga xam ne ñooy colonel yaag yu mel noonu nee na ñooñu àtta nañ suratul baqara ak suratu ali imran kon jàng alquran day dox sa diggante ak loolu kon mën na surtout comprendre mukk ñi ñëw ne ñi dàq jàng alxuraan ci nit ñi gën cee kii ñooñu la jinne yeeg seytaan yi gën a yàpp loolu mënta nekk am na nag feebar yu bari yuy dalee yoo xam ne facteurs yi muy wane ci kaw boo ko xoolee day mel ne dafay nuroo ak ku jinne sadd fekk feebar ba leneen la kon foofu fu aaje teey la mocc moom jamono yu nekk sañ nañ ko waaye daal bala ngaa joxe feebar bi lan la ak yu mel noonu aaje na teey aaje na teey kon mu jàll si ci gàllaaj ya وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينا مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف نينا وفي التمائم نكنجا غلاجيا ولا nga ne bogal de niñ ko waxe won tamaim nak buñ ko waxe pluriel la manam jamu la dafa bari benn bi moy tamima al muallaqaat yad yuñ takk maanaam téere yuñ takk daal wala gàllaaj yuñ takk in takku su nekkee ayatin mubayinaati su fekkee ay alquran yu bir lañ waxul ay alquran yuñ jaxasay xaatim de mubayinaati alquran yi kese yoo xam ne ay njuumte nekku ci ay yàq nekku ci alquran nee na su fekkee ne kon gàllaaj ba ñuy takk alquran yi kese la ju dara jaxasoowul fal ixtilaafu juuyooga waaqiun aji tàbbi la bayna salaf ci diggante boroom xam-xami salaf maanaam ahlu sunna seen imaam yu mag yee yooyoo nañ ci ne ndax li nit ki takk bu fekkee alxuraan la dagan na mu di ko takk wala daganut nee na fa baaduhum lenn ci ñoom ajaasaha daganal na ko am na ci ñoom ñoo xam ne nee nañ dagan na wal baadu lenn la ca des kafa fegu na maanaam nee na daganut ñii nee nañ dagan na ñii nee nañ daganut waaye ñi ne dagan na yit dañ ko wutal ay condition néewuñ rek dama takk alxuraan waaye dañ ne ginnaaw doonatul alxuraan kese ginnaaw bind nga ko ci dara ba takk loola sab xol na mucc ci di aju ca loola maanaam du aju ci téere ba nga takk kooku mooy benn condition bi ñaareelu charte bi moo di bul dugg ak moom fu laabut bul dugg ak moom fu laabut maanaam kon nit ko bu takkoon gàllaaj boo xam ne alquran la ci kaw ña wax ne dagan na moo di su dee dugg ca wana wa da koy dindi su dee nekk ci yenn situation yi digganteem ak soxnaam wala yu mel noonu daf koy dindi teg fële lépp loo xam ne ragal na ne béréb la bu yelloo wut ak alquran kon daf koy soreele ak loolee mu takk waaye jàpp naa ne condition yooyu néew na nit ki mën a takk ab téere ba noppi di sàmmonte ak moom takkub téere sax te aju sa xol aju wu ci ci boppam rek moom doomu aadama xawu ko man léeg-léeg nga gis ku takkati téere yi dëgg-dëgg koo xam ne bu xëyoon di tukki tey am téere bu mu fàtte fu mu ko fu ca xel ma demee day del siwaat te tuuti musiba dal ma di taxoon ma nar dem nar fee bàyyi téere téere sëñ diw bi kon kooku bu la waxee ne xol ba aju wu ci kooku waxut lu am kon li gën a wér ci juuyo googu nga xam ne am na ci bayna salaf mooy ñàkk gee takk ñàkk gee takk moo gën a wér lu tax mooy condition yiñ teg pour amal ko lu jafe la muy sa xol du ci aju te doo ko yóbbu fu laabul doo ko yombul beneen bi ci des moo di ki ñu wàcce woon ci moom alxuraan ji mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàngale lépp moo ki saxaabaam amuñu lenn lenn lu wér lu jóge ci ñoom luy wax ne mas nañoo takk alxuraan wala ñu mas koo digle wala nit mas koo def fi ñoom ñu ne ca ceel kon xamuñu woon takk alquran ñoom kon ñàkk gee takk mooy li gën a wér ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana faju ci alquran di ci faje di ko digle itam te néewul takk leen moom takkul moom ci boppam waaye li mu daan def mooy lan ah mooy mocc jàng jàng alquran ci la daan faje kon nit ki ci jàng alquran bi ak léemu ko ci lay fajoo ci lay fajee itam waaye beneen anam goo xam ne moom lay jëfandikoo bu dagan jàpp ma ne googu nag am na ci donte juyoo gi moom borom xam-xam yi dañ koy tudd ne am na loolu mooy su fekkee ne gàllaaj yi dafa doon alquran mu ne nag wa in takun mimma siwa alwaxyayni fa innaha shirkun bi gayri mayni wa in takun su fekkee ne dafa nekk moom gàllaaj yooyu mimma siwa alwaxyayni ci lu dul alquran wala xadis maanaam sunna nee na fa innaha nekk moom shirkun bokkaale la bi gayri mayni ci lu dul wax lu dul dëgg maanaam ci lu wér daal kon su fekkee ne gàllaa ji alquran la foofu lañ juuyoo waaye su dul alquran su fekkee ne nekkul alquran ak leneen lu mën a nekk moo xam yeemu limoon ci bopp bind bi la muy xor yaag sell yaag yu mel noonu wala day leneen loo xam ne bokkut ak yu mu tuddoon comme ay reen wala ay béjjën su boobaa nee na bokkaale la waaye bul fàtte détail bi ñu tuddoon bokk li tax mu ne bokkaale shirkun foofu làmboona ashirkul asghar ak ashirkul akbar bu ne bokkaale la benn mu nekk bokkaale gu ndaw wala bokkaale gu mag bokkaale gu ndaw gi wax naa la ne mooy bakkaar bu diis boo xam ne moo gën a rëy kabaar yi ci des moo gën a rëy naan sàngara moo gën a rëy njaaloo bokkaale gu mag nag mooy ga nga xam ne moom day génne nit ki lislaam kon loolu leer na ndax mu ne bal innaha qasimatu lazlaami fi lbodi an simauli lislaami nee na takk gàllaaj goo xam ne ay bant laa ki reen ki béjj nag yu mel noonu du alquran nee na kooku qasimatu lazlaami nee na moo li ñuy tuddee azlaam ñooyam azlaam nag buñ ko waxee ay mbir la yoo xam ne caddoy yéefar yi ñoo ko daan jëfandikoo mooy banti loterie yoo xam ne dañ ko daan jël ñoom mu doon ak bokkaale gu doy waar goo xam ne dañ koy jëfandikoo su ñuy bëgg a génn di dem fenn dañuy jël bant bii bant ñu bind ci ifal mooy defal bii ñu bind ci laa tafal mooy bul def bii ñu bind ci xofal mooy lu neen maanaam lu niil kon ñetti bant bant bu la naan demal ak bu la naan toogal ak boo xam ne dafa niil jël ñetti bant yooyu nag dugal ko ci mbuus woo nit muy génne su génnee bantub ifal bantub defal génn bu dee dañuy tukki ñu tukki bu dee dañoo bëgg a takk jabar ñu takk jabar bu dee dañoo su nee laa tafal bul def lañ doon def lu mu mën a doon ñu bàyyi ko su fekkee nag bant bi wax xafal moo génn maanaam bi nga xam ne moom néewul a demal néewul dikkal dañuy defaat opération bi ñaari beneen yoon waa ji génnewaat su ko defee ba muy ñetti yoon nag kooka moom day daal di tiit maanaam bant boobu naan xafal su génnee ñetti yoon maanaam day day wane ni mbiram daa aju laaj na mu dem seeti bu xaaba wala koo xam ne moo mën a lijjanti ay mbiram pour mu àjji ko ndax ginnaaw moom dem na ba àgg ci foo xam ne daa tàkk amatul ñu naan ko demal wala ñu naan ko toogal ba muy ñetti yoon kooko moom mu ngi ci lënt moo xam ne moom jabar bu mag rek moo ko mën a xett li su ko defee nag kooku loolu lay wax ne xasima boobu nga xam ne moom la jaahiliya doon def nee na lii mu wax ni xasimatul azlaami bant yooyu ñu daan jëfandikoo muy xeeti njabar googu lii ak loola ñoo yam maanaam ñoo nuroo xasima mooy li nga xam dafa nuroog moom waaye lislaam bi mu dikkee azlam yooyu ñu doon def dafa leen a watteele lu ko gën muy duwaawul istixaara jullit bi nga xam ne dafa dem ba nga xam ne dafa soxlaa bëgg a def dara te xamul da koy def wala da koy bàyyi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ko jàngal istixaara jàngal goo xam ne daf ci insisté lool ba jaabir ibni abdullahi radiallahu taala anhu di wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf nu daan jàngal ñaanug listixaara nim nu daan jàngale alquran di wax su kenn ci yéen amee itte na jàpp julli ñaari rakka su ko defee jàng ñaan googu lépp boo ko seetloo tawxiid la fa mu tàmbalee ba fa mu yem muy duwaawul istixaara kon kooku soree na lool ak ñoo xam ne dañuy jël ay bant di dugal ci mbuus ñu génne moo tax mu ne inna bal innaha qasimatul aslaami fi l bu'di ci sori goo xam ne sori na ko an sima ulil islaami ci màndargay waa lislaam maanaam waa lislaam seeni màndarga kii def lii nam soree ak ñoom mel na ne waa aslaam yooyu nga xam ne ay bant la ñuy jëfandikoo door a def wala ñu door a bàyyi nee na yéen a yem képp yal na nu yàlla musal ci yu mel noonu yal na nu borom tabaraka wa taala xamal suñu diine saxal nu ci tawxiid ba kere ñu koy fekki naam fobo salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah dafa am ci yenn borom xam-xam salaf yi wax ni li doon màndarga yi jët jullit ñi ak yeneen jataay yi rawatina ñi nga xamante ne ñuy xeeñ ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy buñ juboon jataay yooyu rek dañuy dégg ay riir te riir yi mooy ñuy jégg ñuy jullee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam te dafa mel ni loolu mbokk yi duñ ci bàyyi xel bu baax a baax saa su nekk ñu ngi tudd tur yonente bi alayhi salatu wasalaam te duñu dégg ñuy julli ci moom dañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu baax na asalaamaaleykum am na fi ay benn benn xadis bala ñu leen a jox microphone bi ñu romb ci ci gën a aju ci wàllu ala kulli xaal kii dafay laaj laaj boo xam ne xëy na jombul jàlloon na waaye fekkiwu ko wala amoon na yu duroog moom xadiisu buxaari bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di waxe ne képp koo xam ne gis na ma ci ay nelaw dafa jëfandikoo dafa indi ibaara fa sa yaraani fil yaqza dana ma xalat xalsata gis ci ak yeew maanaam lu dul ay nelaw mu ne xadis boobu ndax day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ koo gis fii ci àdduna gannaaw boo xamee ne alayhi salaatu wasalaam génn na àdduna bañ denc ko ci bérébam ba foofee ci Madina li ñuy jëkke mooy boroom xam-xami sunna yi xam xadis dëppoo nañ ci ne xadis bi ni mu tëddee moo di ne ku ku ma gis ci ay nelaw faka annama dafa mel ne gis na ma moo tax benn riwaaya bi nga xam ne dafa ñëw ne fa sa yaraani maanaam dana ma xalsata gis boroom xam-xame xadiis yi àtte biñ ko jox mooy li ñuy tudde shuzuz xëy na loolu mën naa doon la xaw a xóot ci ñenn ñi waxin ni waaye mooy daal su fekkoon ne dañ ko bëgg a gàttalal ñépp bañ dégg ko mooy riwaaya bi wér mooy ku ma gis ci ay nelaw mel na ne gis na ma ci ak yeewu mel na ne gis na ma ci ak yow li gën a wér moo di amul sax li gën a wér maanaam li wér moom dong te leneen wérut moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boo xamee ne génn na àdduna ba ñu denc ko ca bérébam boobee kenn du ko gisaat fii ci àdduna mu génnaat di dellusiwaat loola loola du am ndax mbir mu rëy la moo xam ne ci yi gën a rëy ci yu mat a jot li su doon am ci la bokk su fekkoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam day génn àdduna ba noppi dellusiwaat kooku ci mbir yi gën a rëy ci yu mat a jottali ci lay bokk su fekkee ne dellusi Isa alayhi salaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam jottali nanu ko dikkuk almasiixu dajjaal ci mujjug jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam det jottali nanu ko nan lay mën a noppee ci ak dellusiwaatam moom beneen bi dañuy wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu doon dellusi c'est-à-dire nag boo duggee ci yenn téere yi yenn téere yi tasawuf yi sax sooy ba ñu wax ko da ngay gis ne lañ lay wax ne yonent bi ñëw na dafa bari lool sabab yañ lay wax ne moo ko yëkkati it yu doy waar la maa ngi cay fàttaliku benn boo xam ne dañoo wax ne benn xadis boo xam ne dañuy xuloo ndax wér na wala wérut kooka ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu na ma léegi ma teg ko bët mu ne ma xadis bi wér na kii ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa ko yaqzatan maanaam jàkkaarloo na maa ngi moom mu ne ma yow ci samay sët nga bokk ndax saw askan mi ngi dellu ci xasan ibnu ali maanaam looloo yëkkate woon yonente bi googa yoon kii ne dafa am ndaw soo xam ne daf daan wër di way di way rek ci mbedd yi noonu ak waykat la nit yi di ko reetaan ñi ŋàññikat yi di ko ŋàññi am kenn ci ñoom seen kilifa ya mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa ko day mu ne ma kii ngeen gis nii muy way ngeen di ko suufeel day wàlliwu mag la wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne lislaam mën naa jaar ci lim jaar lépp ñuy joxe misaal ci fitna yi doon am ci diggante saxaaba yi nga xam ne dem nañ ba ay xeex di ci am ay deret di tuuru boo jëloon maaraka bu mel ne Siffin xeexub Siffin diggante saxaaba yi kenn ku nekk jàpp ne lii mu nekk mooy dimbali diine mooy dëgëral ko ba tax ak yooyoo am ci seen biir ba xeex am ci ba ay deret tuuru ci yoo xam ne ëpp na fanweeri junni ci ay jullit li ëpp ci ñoom doon ay saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war a mën a génn te bu dikkoon ne nii la rek ñoom ñëpp ñu teg ngànnaay yi ci suuf mu noppi ci loolu ba deret yooyu yépp tuuru muy feeñ aw nit naan leen ndaw si ngeen di wax wàlliyu la kooku daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soree naag loolu kon xadis boobu tegtaliwut loolu waaye ñu xam ne xadis bi li muy firi moo di bu dee da ngaa gént gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ne ka nga gis yonente ba la ndax seytaane mënu koo mënu koo nuuru nuurulu maanaam seytaane mënta doon yonente bi ñuy jàpp ne moom la moo tax boroom xam-xam yi dañoo teg ay charte ne ka ngay gént gis kon na doon ku mel na la kutubu shamail maanaam téere yi melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nem nañ ne na la mel ka nga gént gis na mel noona la diine ji wax ne kooka loola la daan wax moom yonent bi kii nga gis bu mu wax lu juyoo ak loola bu mu yor melokaan wuute ak woowa loolu lu am solo la ndax léeg-léeg nit ki gént rek gis benn waayam amaana ci biir gént gi mu ne kii ko mu ñu ne ko kii yonent bi mu xëy ne gis naa yonent bi te gaaralul kam gis ba xam ko mu doon gént nga gis koo xam ne yorut melokaan moom yoroon moo xam ci jëmmam la kenn ku ne xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu meloon ci jëmm kulóoram xam nañ nu mu meloon xam nañ ab sikkimam nu mu meloon xam nañ taxawaayam nu mu meloon lu jooy ci loolu rek keneen nga gis te seytaane nag mën naa nuru nuru lu keneen moom gis nga ko mu yor melokaan moom yoroon yépp ci xeetu melokaan wow doomu aadama waaye gis nga ko mu sol lu bokkut ak la mu daan sol par exemple gis nga ko mu sol yére yoo xam ne day watu wala dafa muur ay dojoram alayhi salaatu wasalaam xam ne kookat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi du mooy yàlla te moom moo ne woon loolu bàkkaar bu mag la gis nga ko mu yor benn matériel boo xam ne bokkut ak yam daan yor comme nga gis ko ndax nit ñu bari li nekk ci seen bopp bu ñuy gént ka ñuy gis muy nuroog yonent bi niñ gisee ab ab sëriñ bu rëy ci jamono jii rek dafa nañ ne noonu la war a mel day war a gis ko yor kaalaam gu rëy rëy yor kurusam def nangam soo gisee mu yor kurus rek xamal ne keneen nga gis waaye du yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk na fi ba jóge fi alayhi salaatu wasalaam amul kurus faf kon day yor melokaan yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yor yoroon ci bindam di sol lam daan sol di yor lam daan yor su waxee ak yow it lu juuyoog lam daan wax maanaam gis nga ko mu dollil la ci diine ji lu toll ne tarfatul ayn ne la boo xëyee defal nangam wala na nga sant nit ñi ñu def nangam xamal ne gisoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax du dolli ci diine ji dara fa mu yemoon rek la koy yemale borom bi tabaraka wa taala moo nekkoon alyawma akmaltu alaykum akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina diine ji mat na kon dara du ci dolli ko kon soo gisee nit ak lu mu nuru nuru lu yonent bi mu lay dollil dara ci diine ji xamal ne keneen nga gis ku seytaane ji ma nuru charte yooyu yépp nag su bokkee daje nag nga gis koo xam ne melokaan wa mooy melokaan wa col ma mooy col ma bagage ba mu yor su fekkee yor na dara mooy bagage ba bu waxee ak yow la mu wax ak yow mooy la mu daan wax ah rafetal njort ci ne gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci googa gént wallahu taala alam kii day laaj ab xadis ndax wér naam déet kooku insha allah danañ ko tontu kii dafay laaj julli ba sëlmal rek di joxante loxo ala kulli xaal joxante loxo su fekkee nuyoo lañ ci jublu maanaam aw nit lañ yoo xam ne nuyoo guñ woon dañu ñëwoon rek dugg ci biir julli gi julli ba àggal biñ daataan génn jàkka ji ñu nuyoo comme ni ay julli di nuyoo loola dara nekk ci waaye nag su fekkee dañ koo jël def ko aada joo xam ne daa mel ne lu bokk ci julli gi nga xam ne même suñ nuyoo woon sax lu jiitu loolu mën nañoo ànd ba ñëw ci jàkka ji julli ba sëlmal kii daal di ko jox la kii jox ko loxo xamal ne loolu kon biddaa buñ dolli la waaye bokkul ci li nga xam ne moom la lislaam santaane kii def ne lan la ñuy laa biire koo xam ne day mer lu bari day mer lu bari mer lu bari léeg-léeg li koy waral mën naa nekk bind ci nit ki xëy na yar bi mu yaroo wala environnement bi nga xam ne ci la juddoo yaroo fi màgg fi kër gëm yaroo nit ña dañoo naqari dara di xulo di saagaante di def yu mel noonu ñu wàll ko ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xale bi day judd moom doon ko set wecc waaye ay waajuram ak environnement ba ko wër ñoom ñoo koy soppi loolu léeg-léeg mu dale ko doon léeg-léeg mu doon loo xam ne bind la bu nekk ci xol bi loo xam ne daal dafa bindoo naqari deret léeg-léeg metti metti jamono mooy indi ak naqari deret jamono ju mettee metti nit ki yanu yan yu diis am ay problème yoo xam ne xamul fu mu koy fajee ci àdduna loolu dana tax nit ki naqari deret léeg-léeg it jëf leen tey nit ñi dem ba fekk ku neexoon deret ñi tax ko naqari deret da doon jëf leen tey nit yi jëf leen tey yu rafet di def lu baax di lebal kii di may kii di def nangam ñoom ñëpp ñi di ko war su waxee kii sax lewetal ñu ne kii daa ñàkk bopp su ko joxee alalam mu lekk su defi nangam day tax mu dem ba mu yàgg day mujj soppiku situation ba mu yoroon ak na mu doon xalaate xalaateetu ni jàppeetul nit ñi dam leen jàppe woon naqari dara dikkal ko mer daa di bari waaye ala kulli xaal ñu xam ne mer moom nit ki mënu koo bañ a def waaye nag li am solo mooy nit ki buy mer la koy tax a mer doon lu jar mer li ëpp solo ci luy tax jullit bi mer mooy lu aju ci wàllu diineem yonente bi alayhi salaatu wasalaam daawul mer lu dul suñ jalgatee diine jullit bi day jéem a formé boppam ci melokaan boobu ki ko tooñ lu tooñ gi rëy rëy mbir yi nu mu mel mel mu jiima bësanteeg boppam ba meram moomu du ko feeñal nan lay bësanteeg moom boppam li yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ba mu gisee ñaar ñuy xuloo ba kenn ci bët yi xullikum mel ne koo xam ne àndatul ak sagoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne xam naa loo xam ne bu ko defoon lii muy yëg dootu ko yëg mooy lan nee na mooy mu jàpp jàpp ñaar ñaar kon nit su demee ba mu neex dikkal ko aw yaramam tàng na dem jàpp julli ñaari rakka su ko defee seytaane daf koy daal di sori ndax mer képp seytaane la dugg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa tax ba bul neex nit daa ñëw ne ko dénk ma mu ne ko laa tax bam mu neeti ko dénk ma mu ne ko laa tax ba yem foofu rek bul mer kon góor góor loolu fexe ba ba bul mer sooy mer nag ba mer munta ñàkk na doon loo xam ne lu jar mer la te su amee nga bëgg koo saafara kon wax na la saafara si mooy lan kii def ne atteb sharia ci ndaw soo xam ne day séyeg góor goo xam ne du julli du woor daganut daganut ndax ñàkk a julli ñàkk a woor boroom xam-xam yi moom ñaari taxawaay rek lañ ci am ki bàyyi julli te tey ko ak koor boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne suñ ko tuubloo mu lànk des koy rey loolu la sharia àtte ci moom ndax nag dañ koy rey mu doon ab yéefar wala dañ koy rey mu doon ab jullit foofu la jooyoo nga nekk li ëpp ci boroom xam-xam yi dañ na dañ koy rey mu doon ab jullit maanaam pour jàjj ñeneen ñi ci des ndax loolu ñu bañ koo defati bu ëllëgee am ci seen biir ñoo xam ne ku mel ne al imaam ahmad ibn hanbal akum njëram dañ ne moom ab yéefar la des koy rey waaye ñi la wax ne dañ koy rey rey goo xam ne reyu jullit la su lànkee bañ a julli cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah day wax ne loolu dañ koo bind rek ci téere fiq yi waaye mënta nekk maanaam ki bàyyi julli ba mu jaral ko ñu rey ko ca nee na kooku daa weddi julli ci boppam ndax ñoom ñëpp nag dëppoo nañ ci ne ki weddi julli moom ki ko weddi moom dañ koy rey moom ki yéefar la ki weddi julli ab yéefar la amul benn benn werante waaye mu ne ki nga xam ne dañoo jekki ba waxtu julli jot ñu woo ko ne koy kat sariya la woo nee nañ nga julli te boo julliwul xam nga ne dañ lay rey feeg waxtu julli wi jeex nag trente minutes moo fi des mu ne julliwuma ñu bàyyi ko mu dem yekki ba fukki minutes des ci ñi woowaat ko mu ñëw fekk jaasi jaa ngi melax waa ji koy rey mi ngi taxaw yor ko ñi ne ko jullil bu fukki minutes yi matee dañ lay rey mu ne julliwuma dem ba benn minute des ci ñi woo ko waa ji taxaw wokk ay loxo mbubbam ngàbb jaasi ji mbooloo mépp taxaw di seetaan ñu ne ko boo julliwut ci minute bii la lay rey mu ne julliwuma nee na kooku daa gëmul julli nee na ki àgg foofa dafa gëmul julli waaye taayeel nag àggul foofa moom kon nee na masala la moo xam ne boroom xam-xam yi dañ ko bind noonu rek ci téere yi waaye munta nekk maanaam koo xam ne dañ koy rey ci julli te fekk li tax ñu di ko rey mooy taayeel dana loolu mënta nekk te loolu nag ànd nañ ceeg moom bu wér a wér wallahu alam da cee boole beneen laaj mu ne at teb participer ci tabax ab église ci ab jullit ci alalam looloo tam daganut am lu xaraam la bépp béréb boo xam ne moyukaayu yàlla la nga xam ne jullit bi dafa gëm ne fii mooy la mooy yàlla lañ koy def daganul ci ab jullit bi participer ci tabax ko la kulli xaal léeg-léeg yenn laaj yi moom day xaw a doy waar ci àtte fecc lay wax koo xam ne day wéet ak soxnaam ci biir béréb bi ñuy fecc ala kulli xaal bu fekkee dañoo wax ne maanaam daaira li dagan yaatu na yaatu na lool nag daaira yi nga xam ne sharia daf ko daganal yooyu yaatu na lool waaye sharia waxul ne day lépp lu dagan lu ne rek nañ ko jël am na yu dagan yoo xam ne mën nga koo jël maanaam mën naa indi ay fitna yu doy waar yu nekk ca kanam léeg-léeg nga gis ñaari way dencante ñoo xam ne dañoo dem ba mu yàgg seen diggante yàqoonte kenn ku ne dem ñuy nettalente yoo xam ne maar day taali ah su fekkee ku fonkoon dara ci boppam wala respecté dara ci boppam nag soxnaam di wëlbatiku naan kenn dàq ko fecc su boobaa kooku musiba lay indi kii dafay laaj ndax su fekkee ne ndaw si col mim sol charti l'islam yépp daje na ci ndax loolu kon jilbaab lañ koy tuddee bu boobaa ala kulli xaal mën naa bañ a doon jilbaab li am solo mooy charte yi rek na daje col mi daal na jot sëkk sëkk tàmbalee ci kaw ba ci suuf na yaatu ba du melal cër yi na fat bala nekk ca biir kenn du ko gis col mi muy génne it na bañ a doon col mu taaru moo xam ne ku ko gis xam ne lii rafet la ñeenti condition yooyu su dajee kooku colum lislaam la tur wañ koy jox nag kooka ma ngay dellu rek ca askan woowa nañ nañuy tudde yére booba ndax turi yére yi moom day wuute lool ni ma leen ko waxee woon wenn tur wi sax day wuute jilbaab rek da nga koy wax fii mu am lu muy firi nga dem feneen ne jilbaab muy firi leneen boo ne woon jilbaab ca Maroc seenub jàllaa bi bokkut ak la waa golf bi di tudde jilbaab jilbaab ba nekk Maroc lu xat lay doon loo xam ne li wér mooy jigéen sax waru ko mën a sol di génn moom nga dem fële fekk fa jilbaab boo xam ne bu yaatu la nga ñëw fii fekk fi façon jilbaab moom it boo xam ne bu yaatu la yi ñuy sol dara gënu ko ci dara gënu ko ci baax ala kulli xaal tur wi itteewul li itteel mooy na charte yi daje na doon col mi nga xam ne moom la lislaam sol santaane kii dafa laaj mu ne ki nga xam ne dafay tukki nekk ci biirub tukki war faa sax ab diir maanaam nan lay wàññee julli wàññi julli moom mooy julli goo waroon a julli ñeenti rakka nga julli ko ñaari rakka loolu rek mooy wàññi julli waaye julli ñaari rakka di su ko wàññi comme julli suba julli ñetti rakka kenn du ko wàññi comme julli timis waaye it moom mi tukki mu na xam ne dem ca jàkka ji julli julli mbooloo matal ca gannaaw ilimaan ja moo gën ci moom mu toog di wàññi waxoon nañ leen ne amul wufuut muy at mi nga xam ne délégation yu bari yi ci lañ doon ñëw Madina la chaque ni ñu doon ñëw ñépp aw gan lañ woon waaye dañ doon xër ci julli ci sàppe su njëkk sa sax fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax ma wax loolu mooy am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne kii tukki daganut sax muy muy matal faf maanaam day xaraam ci moom mu matal loolu moo tax daa war a beru julli ñaari rakkaam bu mu julli ji ci jàkka ja loolu njuumte la kii moom li muy laaj moom defe naa dafa aje conférence bu gudd a gudd qissatu firawna moom ci alxuraan maanaam muy àtte maanaam nett lii aju ci firawna ci ci alxuraan mooy mooy lan defe naa loolu dafa ajewoo ak conférence ndax listixaara dañ koy def bala ngaa sëlmal julli gi wala boo sëlmalee ba noppi li gën a wér mooy ak ñaan la boo xam ne da ngay sëlmal ba noppi door koo def jullil sa ñaari rakkaa ba sëlmal nga def ñaan googu donte am na nag boroomi xam-xam yoo xam ne dañ ne ci biir julli gi la koy def waaye fan la ko fi defee ndax bu su jootee la wala bu taaya ba jeexal waaye li gën a wér mooy ñaan la na julli ba sëlmal door a def ñaan gi mu ne ndax dagan na ñu di ko baamtu mu koy dagan na ndax ñaan la jullit bi lépp lu muy ñaan lu ne dagan na mu di ko baamtu maanaam bu ko defee tey bu ëllëgee mu defaat ko bu ëllëgee mu defaat ko wàññiwul dara waaye nag ñu wattandiku li ñu baree bari jàpp muy defe ne boo dee da ngaa def istixaara bi li ngay bëgg a def faaw da ngaa war a gént lu lay wax ne defal wala bàyyil wala da ngaa war a gis lu koy santaane déedéet amul gént amul dara yow daal ak ñaan la goo xam ne yaa ngi dugg ci mbir nga ne yàlla ñaari mbir a ngi nii tànnal ma ban moo ci gën ci sama àdduna ak ci sama diine nga dogalal ma booba lii may bëgg a dugg nag su fekkee baaxul ci sama àdduna baaxul ci sama diine yàlla nag ma ko dàqal te tànnal ma leneen lu ko gën kon googu ñaan boo ko defee amal yaqiin ci ne borom bi tabaraka wa taala dana nangu sa ñaan googu tànnal la la gën ci yaar yooyu su dee def ko moo gën dana la ko tànnal ñàkk koo def moo gën dana la ko dàqal noonu rek la waaye amut looy gént di gis rek leneen luy ñëw di la feeñu naan la jaaral fi wala jaaral fi wallahu taala alam kon yàlla yàlla yàlla gën a yokk xam-xam bi ah
damay laaj asala hal yajuuz asalaatu xalfa man taallaka tamima julli gannaaw nga ndax xamante ne dagan na ñiy julli ci gannaaw koo xam ne dafa takk téere takk téere tuddaloon nañ leen ay atteem am na ci boo xam ne dañ cee juyoo ndax dagan na wala daganul su fekkee mooy su fekkee alxuraan la am ci boo xam ne benn mu nekk bokkaale gu ndaw wala bokkaale gu mag bokkaale gu mag nag mooy liy génne nit ci lislaam da di nag nit ki mën ngaa gis mu takk loo xam ne wóor na la ne lii su ci fasee yenn pas-pas yi yóbbu na ko ci bokkaale gu mag su ko ci fasul ci daayira bokkaale gu ndaw la nekk kon ab jullit la lii tax nag nit ki ñàkk a julli ci gannaaw nit mooy mu sax fi moom ne du jullit saa boo amee yaqiin ci ne waa ji gëm na lii gëmin woo xam ne génne na ko daayirab lislaam dugal ko ci daayirab kéefër daayirab bokkaale gu mag su boobaa bul julli ci gannaawam waaye nag jarul nga cay sonn nag di ko enquête ba xam ba xam ndax fan la ko mbir mi tolloo gi mel noonu jarul ndax lislaam may na la nga ñëw fekk nit ñuy julli rek nga ñëw julli sëlmal na nga sëlmal dem sa yoon doo laaj luy pas-pasam ak lu mu jàmb ak ma ginnaaw alxuraan lay jàng ngay dégg te alxuraan ji mooy alxuraan ja nga xam ni mu jullee mooy ni nga xamee kooku moom sa julli wér na su fekkoon ne moom ak julleem baaxul sax du la war dara du la war donte lenn ci ngër yi dañ ne maanaam boo demee ci muxtasaru xalil day wax ne bokk na ci yàq julli nga dem ba mu yàgg mu wóor ne imaam ji ndekete du jullit nee na kon donte fukki at la it da ngay war a fay li weesu woon lépp li weesu musiba loolu su meloon noonu kon kooku taklif bi ma la yutaaq lay doon moo tax am na ci jamonoy andalus benn yahud boo xam ne dafa mas a dikk wane ne dafa tuub di jàng alquran di jàng sunna ba àgg ci ñu jàppe ko borom xam-xam ba def ko yilimaan ab rome la mu jiite leen loo xam ne jege na fukki at ba mu yàgg mu xëy takki bagaasam ne day ñibbi ne leen nag xalil nee na woon wa alayhi alqada walaw baada ashrin maanaam nee na woon saa boo xamee ne ida baana kufruhu alayhi alqada walaw baada ashrin saa boo xamee ne wóor na ne moom mi doon jiite ab yéefar la fay julli ya war na la doonte gannaaw fukki at la mu ne leen li ma fi doon julli lépp nag dama ne woon ab jullit laa waaye daal di wax la mu wax li gën a wér ci lislaam mooy nit ki su fekkee ne julli na nga julli ci gannaawam sëlmal dem julli nga jeex jeex na su fekkee ne ku baax la ku julli julli bu baax la moo xam sax jàpp na wala jàpput yow loola du du sa mbir yow ginnaaw xamoo ko sa mbir nekku ci te neewuñ la it laajal nag neewuñ la da ngay ñëw ci jàkka ji ne imaam ndax jàpp nga mu ne waaw nga ne ko ndax luy sa pas-pas mu ne nàngam nga ne ko nàngam di laaj di laaj ba mu jeex nga door ne allahu akbar ci gannaawam déedéet lislaam santaane wu loolu dana ñëw nga daal fekk imaam a ngi julli kabaral ci gannaawam rek julli su noppee su fekkee ku julleem baax la alhamdulilah maanaam nangu nañ julleem alhamdulilah nangu waale nañ sa julli nangu wuñ julleem ngir ay mbir yu nekk ci moom yow loola saw yoon nekku ci ginnaaw yooyu nekkul ci yow lislaam noonu la àttee mbir yi wallahu akbar ala kulli xaal am na waaye yow jullil ba ba ngay am yaqiin ci ne kii du jullit da dina gëstu mbirum yaqiin yooyu ak di ko xam du doonut lu yomb moo tax mastuurul xaal muy ki lislaam suturaal bàyyi ko noonu yow bàyyi noonu rek ba ba nga ciy gis loo xam ne yaqiin lay joxe salaamaaleykum wa rahmatullah bu fekkente ni imaam bi ngay xam ni day takk téere mënoo xam ndax pas-pasam lan la waaye moom dafa day dafa daganal takk téere da koy bind di joxe ni takk téere dagan na dara néew si kooku lan mooy atteem salaamaaleykum waaw xam nga daganal gi moom takk gi daanaka du am te daganal amul ginnaaw mi ngi koy takk rek moom loolu day wane ne bu ko waxul woon sax danañ xam ne kii moom dafa gëm ne lu dagan la moo tax mu di ko takk kon kooku daanaka waxam jërte déglu foofu moo tax wax ji foofu amul amul benn benn importance li ñuy xool kay mooy lii muy takk ban atte la war a yor atte boobu ñaari mbir la mooy xam li muy takk lu mu doon ndax alxuraan wala du alxuraan xam nañ ne du alxuraan beneen atte bi mooy ban pas-pas la ci yor foofu nag laay wax ne doonut loo xam ne lu yomb la nit ki jarul muy sonal boppam it ci gëstu ko ndax suñ jàppoon ne sax même li muy def shirk akbar la waaye amoo ci yaqiin nag amoo ci yaqiin te mi ngi jiite sharia daf laa wax ne boo jullee ci gannaawam sa julli yàqu wut te mën nañ koo nangu moom nag julleem kenn du ko nangu ndax dafa am gàllankoor te yow amoo gàllankoor boobu kon li am solo mooy jullit bi na fexe ba mucc ci gàllankoor yi moom ba su jaamoo yàlla ñu mën koo nangu joxal ko ci sa wet waa ji nga xamante ni moom dafay mocc léegi ci biir mocc bi moom dafay wax ak ki nga xamante ni moom lay mocc day wax ne maanaam seeta seyaatin moom dañoo ñëw ci waa ji maanaam muy wax ñoom ñu koy todd ak ki nga xamante ni moom dafay dóor ki nga xamante ni moom lay mocc waaw loolu laaj ndax loolu am na te taddaar ala kulli xaal jinne ndax dana dugg ci biir yaram doomu aadama di wax ci aw làmmiñam loolu ak yooyoo la ci diggante borom xam-xam yi ñii nee nañ mën naa nekk ñii nee nañ mënta nekk di faj nit itam di ko dóor maanaam doonut loo xam ne lu mu xam ne ci ci sunna li nga xam mooy jàng alquran ak mocc ak ñaanal waaye nag dóor nag moom di dóor nit ki jàpp ne jinne ji ngay dóor wala seytaane ngay dóor te li wér mooy aw yaramam a ngi metti moom faatu sax mën na ko cee gaar yu mel noonu moom moom lu mat a wattandiku la kon mbir la yoo xam ne fii lépp loo xam ne yaa nga cee jéem a yëngu te gisoo ne saxe na nii ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam bul àgg nag foofa ak loo yéene yéene kooku mu wér yamal fañ la ne woon yamal foofu rek wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain